مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة فجاءني بما به فجاءنا باقي المميت والبقاء جانا فجاءني بما به bima wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyiduna wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahaabihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokk téléspectateur télévision ma fatihul bichri amaat mbégte bu baax a baax suñu biir xol di leen jaara di jiital jaar ba ak waay wi ki nu ci baaxoo jiital muy sëriñ Mountakha ibnu Cheikh Amadou Bachir xalif général kullu murit di ñaan saa borom yàggal ko fi lool te wéral ko lool mbakki ngir naalam yoom solo yii muy naal mu yeggale kook sagoom te ànd kook taalibe sëñ Tuuba yëpp ak jullit yëpp wàcce wàcce waay wi ci sëriñ Abbas Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa borom daarul moxti te ñu nekk ci ëttam tey di ñaan yàlla mi tëlewul dara mu wéral ko moom itam te kattanal ko ba naali liggéey mu laal liggéeyal maam Thierno Birahim daamal daarul ci mu yeggale ko ci sagoom waaye nag di siyaar eh, maam Thierno Mbakke di siyaare bu baax sëriñ maam Thierno Mbakke moom sëriñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moom itam ci dëkk bu tedd bii nu nekk tey moo fi sëriñ Cheikh Awa Balla mbokk yi eh, noo ngi nekk ci dëkk bu tedd dëkk bu sell dëkkub Cheikhul Khadim waaye dëkkub maam Thierno Birahim Ndamal Daarul Moxti waaye dëkkub sëriñ Cheikh Awa Balla Mbakke eh, muy daaru Marnaan eh, li ñu fendi nag tey. xam ngeen ne sunu jàmbaar jooju nga xam ni mooy Serigne Cheikh Awa Balla dafa liggéeyal yàlla liggéey bu rëy boo xam ne kenn dootu ko fàtte ba ni mu ñibbee àjjana doomam ju baax ji muy ñaan saa borom yàggal ko fi lool muy Serigne Ahmadul Maxtaar moom Serigne Cheikh Awa Balla di ko fàttaliku muy bis bi nga xam ne mi ngi ko jëlee ci ndigalal kilifaam di maam Cerno moom Serigne Cheikh Awa Balla di bis bi nga xam ne seen waajur wa sëriñ Cheikh Awa la ci la deyaaleeg boromam ñibbi aljana bis boobu nag lañu koy fàttaliku euh, sëriñ Ahmadul Maxtaar ànd ko ak njaboot gépp ak taalibi yëpp ak ñi mu ko war a àndal ñëpp ci kilifteefu magam ju baax ji di sëriñ maam Thierno Mbakke moom sëriñ Cheikh Awa Balla mbokk yi nu nekk fii nag ci dëkk bu sell bi fa yéene ko ànd koog moom euh, ci seen télévision ma Fatihul Bichri euh, incha allahu rabbi bëgg nañu lépp loo xam ñëw nañu fi te bërëb bi di bërëbub siyaar di bërëb bu barkeelu nu wan leen ko ba ngeen gis ko te man koo jariñoo loolu moo waral euh, dina nu fi amal ay waxtaan yu am solo yoo xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy mag ñi àndoon ak Serigne Cheikh Awa Balla daa ko lëggéeyal euh, te tey ñu des fi seenu ak seenu njaboot di ko wattu daa def ak ñoom ay interview yoo xam ne daanu daanu nu baaxee tuuti ci dunduk sëriñ Cheikh Awa Balla mi ñuy fàttaliku waaye tamit danañ leen defal ab siyaar ci daayira yi nga xam ne bàyyikoo nañu ay gox yu fasanti ko lu mel ne Touba ak dëkk yi nga xam ne ñoo wër Daaru Marnaan ngir saafonte ak sëriñ bi nga xamante ne bi euh, mooy sëriñ Ahmadul Maxtaar waaye itam nag euh, ñi nga xam ne ñooy kilifay diine yi ñoom itam te kenn ku nekk bàyyi ko fa nga nekk tey ngir ñëw ànd ak sëriñ Maxtaar bés bi kenn ku ci nekk macha allah télévision ma fatihon bichri daanu leen ko wan ba ngeen gis ko ci siyaar yi ah, mbokk yi kon xam naa da ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Serigne Mourtala Gueye Géwélu Xaadim Rasul ah ci eh, macha allahu rabbi nu ànd eh, fii ci Daaru Marnaan eh, ci liggéeyub Serigne Cheikh Awa Balla ànd ko ak Serigne Ahmadul Maxtaar doomam ju baax ji ak njabootam gépp nga xamante ni ñoom la àndal liggéey bi macha allahu rabbi ñuy siyaare Serigne Sidy mi nga xam ne moo nekk ci communication bi di suñu wëllëre nu fas yéene ànd ak moom liggéey bi incha allah jërë ngeen jëf ko ci kanam tuuti. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin makin wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe mu xeebu du Seydil Muxtaar am Serigne Maam Thierno mooy waxtaan ak yéen wax ji nag mooy li waral li ko waral mooy bisu sëñ Mouhamadul Makhtar sunu bàyyi di sunu sëriñ bis bii muy defal sëriñ Cheikh Awa Balla mu teew fi am ci mbégte lool noonu ko Modou Makhtar waxe ndax uh, nun sëti sëriñ Cheikh Awa Balla yi ñu nu war mooy topp ci suñu kilifa yooyu te ñoom rek lañuy roy ndax loolu mu wax ne tey uh, ñun dañoo dañoo war topp ci ñoom dañ ko dañoo gis ñoom ñu di ko doxal doxalin wu rafet mooy tey Cheikh Seydou Mokhtar borom dëkk bi di sëñ Cheikh Awa Balla bi fi jógee 1976 ba léegi sëñ Modou maxtar sëñ Ateex sëñ Mahfous sëñ Thierno Mara sëñ Mamor sëñ Ahma ak mboolem njabootu suñu Cheikh Awa Balla gi góor ak jigéen topp nañ sëriñ maam Thierno toppin wu rafet woo xam ne nii noo ngi ci teg suñu bët euh, di xool kon noonu danoo ànd nag takku def wenn say topp ci ñoom. fas yéene roy ci ñoom fas leen yéene noppal lépp lu dul coono ndax ñoom kat ñooy sëriñ si ñun ay dongo lañu di ay taalibe ku ne xam na ne sëriñ Modou Maxtaar mooy jëwriñu sëriñ Maam Thierno te jëwriñ jooju waxu ko rek da koo wax jëf te Cheikh Abdoulaye Mbacké nee na woon jëf mën naa yóbbaale wax wax du yóbbaale jëf te du waxi kese da ko wax jëf ko ci loo xam ne lii ku xool gis ko lamb daj ndax topp gi mu topp sëñ Maam Thierno nun ci leen fekke ba léegi ban xàmmee ba léegi lépp lu sëñ maam Thierno mos a joxe ndigal wala doomi sëriñ Touba jox ko ko ndigal sëñ Modou Mokhtar mooy na ci kanam te lu mu song daanaka te loolu teg nañ suñ bët ci yu baree baree bare bare ku bëgg sëriñ bi la ku ko dëggal la ku ko topp la ku ko jàpp la ku ko jàppale la ndax li ñi fi jaar léegi wax dëkk bi bi suñ seexu bala jóge booba ay jann jàkk la fi bàyyi tey jumaa ngi fi ay jàkka ngi fi yu ngi fi waaye loolu damay bëgg nit ñi xam ne loolu sëñ maam Thierno bu ko defee yàlla ak njabootu sëñ Seexu Balla ak rakam yi moo tax man ndax jàpp nañ ko jàppale nañ ko lu mu mës a sumb rek yëkkati ko jàppale nañ ko suñ Mourou Makhtar tudde na sëñ maam Thierno doom na soxna Jor wu doom tudde na soxna Taay doom bam fi jógee ba léegi màggalu Tuubaa gu ne yeewal na sëñ bi yëkk wu mat ba ëpp ci yëkk yi màggalu daarum su gu ne def na ko màggalu daarum mar naan bu nekk def na ak addi yi nga xam ne sëriñ bi da koy sas mu joxe ko addi yi nga xam ne sax moo koy coobareel boppam yëkkati ko jox sëriñ kon mën naa ne 1976 ba léegi kuy calculer boo calculer màggali Tuubaa yi fi dox at mu ne mën nga ne jox na sëriñ bi yett nag ba yent nag yoo xam ne musta manqué man ba ma xamee ba léegi jóge ca daara ja ñibbi si fii ne ci wetu sëriñ bi di tarbiya ba léegi at mu jot loolu defal na ko sëriñ bi te bokkut ak at at yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi sax at mu jot mu yëkkati ko joxe loolu nag bu buñ ko gisee ñun sët yi dañoo war a ànd takku nekk benn nekk seen ginnaaw te li ci mujj barki démb rek di sëriñ bi muy am gan fii ci Touba Roof président de la république Macky Sall nga xam ne mooy pouvoir bi nga ne rëy ci réew mi di ko gane si kero ñun ñëpp seere na ne sëñ Maxtaar mii ñëw na fa ñetti yoon di seet si sëriñ bi ak di xool liggéey bi nu muy dox te bis ba ku ne xam ne ne taxawaay ba ak toogaay boobu metti na ci moom waaye sëñ Modou Mahfouz sëñ Ateex sëñ Ahma ak rakam yëpp ñoo ko ànd moo ànd ci niñ ko tàmbalee ba ni mu jeex ku ne xam na gis nañ ko ñii ak njaboot ay seen njaboot gis nañ kon nag ñun sët yi ngeen xam ne noo ngi maase ànd takku nekk ci ginnaaw suñu kilifa yooyu buñ diglee nu def buñ teree nu bàyyi buñ laa buñ laajee ñu joxe buñ nu yéene lu dem seen digal rek ak seen seen ndigal rek ci la ñuy fas yéene nekk seen ngërëm it la ñuy sàkk bëgguñu lan lu seen ngërëm ndax. gëm nañ ne liñ am ngërëmul suñu Seexu Balla moo leen ko may ndax mag ñi ñuy waxtaanal da nga xam ne dañoo àndoon ak ñoom mooy ñu ñi fi jaar léegi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñuy waxtaan su dañuy wax ne seen way jur yi de liñ am Seexu Balla ma jur rek mayu leen dañoo futti ko laxasaa yu lëggeel ko ba am ngërëm kon nag buñ xoolee ca loola ñu di ko doxal ak niñ demee tey te ñi ngi topp ci gannaaw sëñ maam Thierno lu mu digle ña nga ca lu mu laaj ñu joxe ko fu ko fa kon buñ goree danoo war a topp yoon woowu te loolu ñoom ci lañ nekk kon nag maa ngi wax ci turu sët yëpp suñ àll yu moom suñ Mouhamadul Fadil moom ma ci mag waaye ñi ñëpp samay rakk maa ngi woo ñëpp nu ànd takku def wenn sëñ góorgóorlu bu ko bu suñ maam Thierno xewlee nu xam ne suñ maxtaara xewle suñ maam Foosu xewle suñ ata xewle ñun ñëpp ñu ànd taxawu ni ñuy def màggal daaru maanaam ñetti fan xarit bis bi nga xam ne almarhum Cheikh Seydil Maxtaar ci la ñuy bisoon jóge Makkatul Mukarram te sëñ maam Thierno di ko màggal bis bii nga xam ne it sëñ Modou Makhtar da koy màggal bis bi nga xam ne ci la wujjoon boroom at mu jot mu dolli ko ay ñaan ngir fa mu nekk yàlla dolli ko leer dolli ko ay xéwal nu ànd takku ci di ko def ku xewle ci doomi Sëñ Seexu Balla yi ñun sët yi noo war a takku taxaw lu ca coono ñun noo ko war a féetewoo lu ca di liggéey ñun noo ko war a def ànd ko ak taalibe yi ndax kat sëñ maam Thierno dëgg la mooy xalifa kër gi. moom la fi yàlla teg muy xalifa kër gi am na jëwriñ ji mat jëwriñ yoo xam ne ji mat na jëwriñ sëkk muy sëñ Mourou Mokhtar waxtu wu ne ñu ngi déglu ndigal suñu maam Thierno bii rek bi ñëwee fii loolu la wax na ngeen xam ne suñu maam Thierno mooy sama sëriñ moom laa kar adduna lépp lu mu maa nga ca te ma dégg lu mu tere ma laaj danaa ko jóg incha loolu wax nañu ko fii biig kon nag nun sëdi nan ànd takku nekk benn nekk seen ginnaaw te góorgóorlu noo ngi sant ñi fi teewu ñëpp di gërëm ñëpp mën naan ne fii ci jataay bi sëti Sëriñ Seexu Balla ak sëti Sëriñ Moodu Awa Balla yëpp benn lañ ñëpp ñëpp ñëpp fa bokk jaxasoo nekk ñun ñëpp it bëgg mooy ngërëmul sëriñ bi rek na ngeen di ñaanal nag yéen magi taalibe nga xam ne yéen a àndoon ak sunu maam walbati ko ànd ak sunu sunuy baay na ngeen di ñaanal ban am ngërëm ndax fu ngeen nu dégg wala fu ngeen nu gis kat loolu dong la ñuy yëngu moom la ñuy xen amunu genn bëgg amunu yaari bëgg ndax leer noonu liñ liñ bëgg kenn ku ci boo amee sa ngërëmul baay la nga bëgg lépp nga te man de ni ma ko yéenee sama bopp wallaay laa si barki Seexul Xadim laa ko yéene ñëpp barki Seexul Xadim ni mooy bëgg ngërëmul maam suñ maam Cerno laa bëgg sët bu ne am sa ngërëmul bàyyi na ngeen nu ko ñaanal banam ko na ngeen nu ko ñaanal banam ko danoo jaayante sunu njural dañ koo jaay jënd ko ak taalib fas leen yéen liggéey fas yéen lépp fu ñu waroon dem te mënatuñ faa dem nu demal leen fa fu ñu war a taxaw bu ñu fa mën a taxaw nu taxaw leen fa lu ñu war a def nu defal leen ban tëlee door àgg ci kon nag na ngeen xam ne yéen taalib yi suñ maam Thierno dégg naa ma ne suñ Seexu Balla moo ko waxoon ne taalibe bu sëriñ kenn ku ne sagu moom ku ñu sagu ne da ngay fexe mënub sag te yéen taalibe de mën ngeenub sag ndax luñ soxla bu ko bu ko génnee ci làmmiñ sëñ maam Thierno dugg ci nopp sëñ Bodu Maxtaar bu ko wootee ngeen def ko na mu ko bëgg muy xel koom muy geloor muy daaru manaan gi muy tubaaro muy fu mën a doon lépp man de boo ma jógee ca daara ji ñii bi si ba léegi lépp ndigal lu ma mos a dégg sëñ maam Thierno joxe ko boo duggee ci nopp suñu maxtaar bu ko songee taalu bi ànd ak tëral ko suuf loolee nag yàlla na yàgg lool da xam ne yéen la am xëy na nun nun yéen nun ngeen am waaye nun di yéen rek lan am yéen yéen la ñuy sago kon nan takk suñ digg te laxasaayu te góorgóorlu dañaan suñ kilifa yàlla yàgg leen fi lool ci barki barke Seexul Xadiim ndax kat teg na nu ci aw yoon buñ doon teg fenn wala ñu di xool benn bët ci ci lu baax yàlla ak ñoom ndax bu buñ nu yarutoon teg nu ci aw yoon noog ñëpp a yem wala mu yées ñëpp sax kon noo ngi noo ngi ñaan yéen taalibe bi loolu na nga koy saraxu di ko yalwaan ngeen ñaanal suñ suñ kilifa yooyu nañ fi yàgg te ànd ak wér noo ngi seen ginnaaw rek parce que yéen a li ndigal noo nga ci te ñu seen ci lenn lu tere wala lu bu nu saytaane ma ne ba dugal lu ñu tere dootuñu ko terewaat du ñaan loolu noo ngi leen koy seeral noo ngi ñaan nag bis bi nii nu ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin jàmm ak salaam te am ci ngërëmul bëgg nañ lool ndax fu ne ab bi jóge na ko mag ñi àndoon ak sëñ Seexu Baal tey mag mu ci ne sax njaboot ñi ngi fi ànd jàpp ci liggéey bi la sëñ bi sanc woon dëkk bi ba mu koy sanc ñu naan ko amul kott ak kollet looy looy sancum dëkk te yaakaar naa njëndil bi mu sanc fii 1933 mag ñi nett nañ ko loolu lañ wax dañuy wax naan ko amul kott ak kollet te ñaar la woon ci taalibe yi jàpp ma seen duruwaay boobu loolu lañ ko daan loolu lañ ko daan wax ne ko amul côté kóole looy sanc bu dëkk waaye tey njënd la moo fi njëkk am contrainte moo ko njëkk am fii 1922 la jënd oto 1900 la fi ñëw ci guy Mboura 1927 la ñu bàyyi waaye lu mu fi bàyyi woon njabootam gi yokk nañu dara dellu ci ginnaaw loolee nag gis nañ ko ñun ñii ñoo ngi xool loola na ngeen xam ne fii rek lañ la la nekk na ngeen nu ñaanal bu baax mag ñooñu sant nañ leen bu baax a baax ndax dégg naa sëñ maam Thierno muy wax ne. fii de lu faay am ci tuyaaba ñu am ci lu faay def ci lu baax ñu am ci ndax fii ñoo ko fàkk ñoo fàkk fii di 1933 ba fu mu neex lool suñ seexu bàlla daxeet jóge fi dem Daaru Wahab sanc ko 1960 tey boo demee lépp nga fa 1970 mu sanc Daaru Minam te ñooñee ñoo doon jànkoonte bukki yeeg jaan yeeg jiidi yeeg coono bi di lakk sumul ba àgg nañ ci Iba Ndaw nett na ma ne daa lekk am sumul bu ñu wetti ci kaw jaan yi dañu dem noor yi ñëw fii Darou Marnane noor si ba delluwaat loolu dellu ko tooyalaat di ko lekk sëñ bay seen mii booba danaa wax ne boo boo boo boo taxan jarul boo jógee loolu daal ak matt la wala jaan rek loolu nañu ko te loolu mag mag seeni way jur ñoo ko defoon ngeen wala wëlbati ko àndaat ak sunuy baay kon na ngeen xam ne noonu foofu ngeen nekk rek lan nekk li ngeen bëgg rek lan bëgg muy ngërëm na ngeen ko ñaanal am sun xol sedd na sunum xel dal na ndax mag ñooñu daru nañ sëñ sëñ bi mu sancee dëkk bi mag ñi fi andoon ñu jàngale alxuraan ku mel ni Baye Masseer ku mel ni sëñ Baaba ku mel ni sëñ Mbëddeen tey foofi dem daara jooju ngay riir dafa yokk waaye dara wàññiwul jàkk yi dafa yokk jumaa yi dafa yokk bu jumaa jëre la kër Seexu Balaam fu ne jumaa nga fa tey te day gën yokk incha allah kon nag da xam ne nun noo ngi takk suñu digg laxasaayu góorgóorlu fas yéene nekk ci ndigalu suñuy kilifa nekk seen it luy seen ite yéen taalu bi de mooy suñu ite noonu ndax yéen rek la naan noog yéen ba àjjana incha allah loolu noonu noonu noonu koy seeral yéen ñëpp maa ngi woo sama rakk yëpp nag di ànd ak ñoom ci lépp man ko xeebu laa xëy na def nañ ma kilifa moom rek kilifa jox nañ ma cër bi ñu ma war a jox waaye maa ngi woo sama rakk yëpp suñ xel ak rakkam bi yëpp suñ ahma moom suñ ateex ak rakkam bi yëpp sëñ Baye Cheikh moom sëñ Modou ak rakam yëpp ak sëñ sëñ am ak sëñ Thierno yëpp maa ngi leen di ñaan nan góorgóorlu lu nekkoon ci lu baax nan ko doon ku ci xewle nu taxaw taxaw loola ba mu jeex takk ba sedd guy nu delluwaat suñu it sunu góorgóorlu te xam na ngërëm rek moo moo moo moo am solo ndax sunu waajur yi kat dañoo liggéeyal seeni waajur bañ gërëm leen Cheikh Ahmadou ma Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gërëm jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ci yàlla sun yàlla sunu borom tabaaraka taala jàppaat ci loxoom andi ko yonent bi moo am turu yàlla bari nañ lool Sëñ Tuubaa fekk na fi baax waaye moo fi indi gën fekk na fi baax waaye moo fi indi gën boo ko fi indi daf koo liggéeyal ba am ngërëmam borom daaru mu ci jaayante moom liggéeyal ko ba am ngërëmam suñ Seexu Balla mi liggéeyal borom daaru ba am ngërëm suñ wajur yi liggéeyal suñ Seexu Balla ba am seen ngërëm am ngërëm nun ñi loolee lan jaayante loolu lan fas na ngeen nu ñaanal lu nu am seen ngërëm sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp suñu xol sedd na sunum xel dal na ndax suñ kilifa yaa ngi suñ kanam rek suñu xel di dal ndax lu baax la ñu digal ñu ngi ñuy teg ci aw yoon ñu ngi ñuy jubbanti ñu ngi ñuy ñaanal ñu ngi nuy boole suñ maxtaan li mu wax fii démb kenn mënu ko weesu te ñun ñëpp benn lañ xëy na man mi jiitu day may ku ñàkk solo waaye sama rak yëpp gërëm naa leen sant naa leen ndax li may xeebu xeebu barki dem moo wootee daaru menam rek ñëpp fa teew ñëpp fa teew loolu ma wax dañ koo ci ñoom rek barki dem ku gis ne sëñ Moudou Mahfouz sëñ Atel ak sëñ Ama nañ ànd ak sëñ Maam Thierno fa lañ yendu ba président ñëw ba dix ci guddi fu sëñ bi taxaw taxaw nañ fa fu sëñ bi nekk ñu nekk ci am ñu taxawal fa sëñ maxtaar xam ne mooy jëwriñu sëñ bi waaye coono bi ak taxawaay bi metti na xam nañ ne mënu ko moo tax bañ ba président ñëwee ba def ci discours ba waxtaan ba pare sëñ bi da ko ne demal ñu gis sëñ xam ne mooy moom sëñ Maam Cerno moom mooy ne demal dëppal dellu siyaare ji sëñ Modou xam ne ne benn lañ ñoo bokk Seexaw Bal te bii sëñ maxtaar nett li moo ko fii ba leen di boole ñu jàng ci përi ci yu bari yàlla boole na leen ci ñu ànd ànd ñu rafet kon ànd boobu yal na gën a rafet yal na gën a yàgg barke Seex Xaadim وفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة